jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak euh, Leewtoo TV amati mbegte ak contentement heure bu ñu jàkkaarloog yéen tey nag ñu fas yéene dalal sampion ba nga xamante ne bii macha allah champion la ci làmb ñu koy wax Fodé Mbissane mbër maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum mbokk réew mi maa ngi nuyu ku nekk ak sa ak sa sant. Mm-hmm. di bëggee ñëpp di ziar ñëpp. justement di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak ci sooy ramadaan bi. jërëjëf ci nuyoo bi du ñu def rek lu dul dugg ci biir waxtaan bi bëggoon rek nga wax ma kañ nga dugg ci làmb ak lan moo la dugal ci làmb. man làmb dugg naa ci 2018 damaa nekk xale di jàng samay mag di bëre ni Pape ci làmb yi parfois su ma demee bu leen daane daal def may métti a marqué bu ma dugg ci làmb. kon yow 2018 nga dugg ci làmb. waaw ba nga duggeeg làmb ci léegi yàggul ci 3 ans rek la war a toll. waaw macha allah nga nga am ci tur bi nga ci am. gis nga noonu la fay demee nga doon ànd ak say mag ñu doon bëree suñ bëree ba pare suñ bëree ñu daan leen ngay jooy lan moo tax nga doon jooy waaw te ku bëree sama mag daan ko moom li may gis mooy bàyyi jàng dem entraînement pour fayal ko ko quoi kañ nga njëkk a takk ngeen bu bëree mooy 2018 foofu laa demoon ñëw ci tànk yi may sama benn mag deuxième tour uh-huh. après ñëw pour tante chance noonu rek uh-huh. ci poids lourd yi uh-huh. après daan suñu mbaru dëkk bi. Mhm. ñu koy wax Seeku. Mhm, Seeku te mu doon bu rek sama mag xaadim. Mhm. doodoo la ne woon quoi. combat derby. combat derby la woon. waaw moom dafa bëre woon ak sama mag daan ko. waaw quatre fois lañ bëre moo moo sama mag ah, fois lañ bëre. waaw ku ci nekk daan sa morom. deux deux deux nga ñëw. a ah, ma ñëw nag yàlla dogal ñu tase deuxième tour foofu ma daan ko. après gars mu mujjee bàyyi commentaire bu quoi. a finaalu lamb ji. 300 mil lañ tegoon ci làmb bi. nga dem final. waaw loolu làmb boobu moo def mbor. nga nga jógee foofu di continuer di dugg ci làmb yi nag. année boobu bu ma jógee foofu dem naa faa ooy. jël foofu raw gadu 150 000. Uh-huh. dem Ndiaganiao finalu poids lourd. 200 uh-huh. 000. Uh-huh. ñëw stade may sama grand demi finaal Uh-huh. loolu moo ma def mbër. loolu moo la def mbër. yow ban jamono nga sentir ne fi mu toll nii war ngaa doon mbër loolu euh, ban ban ban jamono la. 2017 la. 2017. maa ngi doon ànd ak samay gars yi. boobu laa xam ne man mii mën naa doon mbër. Mm. te pour ma am ci moo gën a yomb ma am ci jàng bi. Mm-hmm. ndaxte lamb doole moo koy def. Mm-hmm. ak mën ko rek. Mm-hmm. mais jàngu tamit boo amul jàppale doo waaw loolu moo tax ma te ma te allah gis nga de am nga doole. waaw ban année nga judd yow. 2003 moo ci nekk. 2003. barke yàlla 2003 ak léegi ñaata at la. 2003 ak léegi ñaata at la 19 ans mais boo yow 19 ans wala 21 ans. non non 19 ans la am de. 19 ans. booy dafoo gisement. non non defuma gisement. Hmm. booy bi ma àndal sama mag la. ah ki nga àndal sa mag la. ngan nga am 19 ans dugg ci làmb ji macha allah di bëre di wanee sa bopp euh, ñu gis barki démb fële ca euh, Fimela. sa combat ak Mamady Ndiaye bëri woon coow trop ñu bëggoon nga ñëwalaat ñu sa combat ak Mamady Ndiaye keroog lan moo taxoon mu bëri coow. ah combat bi dama yaakaar ne erreur de arbitre la rek. Mhm. maa ak Mamadou Ndiaye. Mhm. ndaxte quart de finale lañ tase poids lourd yi. ma bëre ma daw songu ko jël tànka bi mu door ma tànk ma rëppee lu jogaat. Mhm. war ko ndëmba def ma prise boobu rek. prise bi xaw a takku suuf trop. ndaxte man nangu naa ne teg naa fees mais moom teg na fees tamit. kan moo njëkk a teg fees yow. ñun ñoo daanandoo ci suuf. yeneen ah, yéen a demandoo. waa arbitre bi. dañoo war a suuflawaat combat bi pour mu gën a leer. dafa waroon a woote waat. loolu la sa gis-gis la. voilà ndax Mamadou Ndiaye mbër bu mag la. man mbër bu ndaw la. pour mu gën a leeraat daal. Mhm. mais nu ñu def noonu moom anduma si. métti mhm. na ma trop nag mais nekkaat sama entraînement rek di waajaat. di mos ngeen a bëre wala mosu leen a bëre. première fois ñu tase ma ak moom. yéen a ngi soog a bëri mhm. ñu gis combat ba metti trop yaak moom ngeen bëri ngeen bëri ngeen bëri combat bu neex ngeen jaxasoo. ah waa gis na loolu gëm-gëm la rek. gëm-gëm la rek. ñëw rek wane li nga mën. ñëw wane li nga mën. wane ne nga. est-ce que mën nga noo ñëwal ci yeneen mbër yu mag yi nga xamante ne bii jot ngaa dajeeg ñoom Mbapat bala ñoo dugg ci arène bi. ku mel ni kii Babou Sarr. Babou Sarr waaw. waaw mooy année bi may bàyyi jàng. Mhm. di dugg ci àll bi moom tànk la doon def may def poussière ak raw gadu. nañ ñu ñëw ñëw ba daaw jéeg ak daaw bëri nañ ñaari combat daaw. 10 mhm. millions yi premier tour maa ko daan. ak faaw yi demi final poids lourd maa ko daan tamit. ak Saliou Thioune. Saliou yaakaar naa xamul mais booy ñi ngay wax nii xamuñu leen de ñoom ñu fenn de àll bi dañoo laqatu ci àll bi rek ok ok ñu ngi toj àll bi ñu gis ne ñu gis ne mbëru bëre bëre simple ak bëre arène lan mooy différence bi ñaar yi ban moo gën a metti bëre simple moo gën a metti bëre simple moo gën a metti fuuf ah bëre simple presque cinquante personnes wala soixante quinze personnes. te mhm. nga xam ne beneen nit beneen kese moo dul daanu. Mhm. moo koy jël. loolu day metti mhm. mais bu dee bëree arène nag benn combat la rek boo ko daanee jeex na. yow ñaata drapeau nga am ci simple bi. mot na cent drapeau de wala cent cinq. cent drapeau. wala cent cinq li ma jël bi may bëree ba léegi. waaw bi ngay bëree ba léegi. mot na cent drapeau wala cent cinq kay. ah bon. barke yàlla. mais booy cent drapeau foo koy jëlee. ah c'est que année bi ma bàyyee jàng. 2018 bi. waaw damay jël. chaque semaine ma jël bala ma finaalu bu saison bi tëj. ban combat la mës a daan ci mbër bëre mbappat mu metti la trop. ak kan moo la daanoon. ku ñu naan Sakku xam-xam. Sakku xam nga ko. Mm, Sakku xam-xam dégg naa trop Pape Maron. waaw Pape Maron xam naa ko Pape Maron. moom nag daa daan samay mag. ma daan ko ngoonin. feyu ñu tasiwaat fee baari. baari waaw am na côté boobu la gars yi dañ koo supporter foofu. waaw dafa bëri ay supporter foofu. ñu mm-hmm. bëre bi. Mm-hmm. combat bi xaw a tag suuf ma daan ko après ñu jox ko jël. lu ma metti trop. Mm-hmm. Hmm. mën nga ñu ñëw laaj ci nan ngeen bëree woon yéen ñaar ba léegi nag combat moom man maay fekk si kenn du ma fekk si ko jëli maa ko jëli waaw kenn du ma jëli ci làmb maa dem jëli ko jël tànka bi mu def ma saaru caxabal rek ma woyale ko mu jàll mais arbitre bi nee na bi ma koy woyale sama fees bi daa laal ba léegi yow a teg fees nag booy li ngay teg fees daa bëri de combat boobu moom arbitre ñoo ko kii rek mais maa ko mën ndaxte maa ko gën doon xale te maa ko ëpp avantage ci làmb xam naa loolu. yàgg-yàgg tamit nañ waat yàgg-yàgg na ngeen dajawaat. waaw ngeen bëre arbitre arbitre bi jël victoire bi jox ko. waaw boobu bokk na ci yi la gën a metti. wala ban drapeau nga jël euh, mu gën laa neex ci drapeau yi nga jël. <laughs> bari nañ. Hmm. drapeau yi bari nañ ñi ma jël ñu neex ma moom bari nañ. nga ban moom a gën a neex nag. Hmm. mooy jour bu ma njëkkee jël saako ceeb. jour bi nga njëkkee jël saako ceeb. 2018 la ba léegi de. loolu 2018 ma bàyyee jàng. Ah, jël ñetti saako ceeb ci benn semaine. ñetti semaines yi daal. ah ñetti semaines yi. waaw ok. ma ne lii day yomb après. Mhm. noonu laa def dem Dakar. Mhm. mooy lamb bi wax rek lambu lambayen bi ma ñëw. ci tànk yi may sama benn grand Aboulaye. Mhm. yeeg poids lourd. final trois cent mille boobu laa bàyyee saako ceeb. léegi ñu gis ne tamit bëri nga arène. ñaata combat nga bëri arène. man deux ñaari combat nga def ci arène bi. waaw euh, ñaata victoire nga ci am. benn victoire benn défaite. benn victoire ak benn défaite kan kan moo la daan. Talfat la tudd. Talfat moo la daan. waa kan nga ci daan yow. Yaxya Diop numéro 2 écurie Soumbédioune. arène bi kan nga ci fa fan nga teg sa bët ak kan nga bëgg a bëreel ci arène bi. roi des arènes rek laa teg de. roi des arènes nga teg sa bët. waaw xam nga la lay yóbbu foofa. gëm-gëm ak entraînement rek. respecté sa bopp. maa ngi ci. Mhm. billaahi. ak mën a bëree am fit. bëre moom <laughs> sant yàlla quoi. di nuyuwaal nag père Badajon au passage. Mhm, Badajon. ak waa école de lutte Badajon suñu entraîneur yi. Mm-hmm. Elimane ak Wilaas. Mm-hmm. maa leen di bëggee bu wér. ñan ñooy say adversaire ci làmb ci ci arène bi fi mu toll nii. c'est que su ma limee damay juum rek baa la bàyyi ko ci loxo Badajon. <laughs> am nga booy dañ ne mbër su xamee adversaire am day neex a wutal combat te promoteur yi ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi lay dégg boo ma limaloon sa ñaari adversaire wala ñetti ñetti adversaire da bokk ci mbër yi mbër yi neex a wutal combat. c'est man moom. ci yoon laa nekk di dem quoi. Mhm. ku ñëw ñu bëre ndax que stade moom dañ koy duy ba mu fees. waaw am nga gannaaw. maanaam am bëri nga ay supporters. waaw bëri naa ay supporters waaw. car macha allah. waaw te loolu la mbër yi bëgg quoi. waaw ak promoteurs yëpp. waaw loolu la promoteurs yi bëgg. waa mhm. ndaxte stade moom dañ koy yëngal ndax sama woykat bi lay andi Oli Thiaré. Oli Thiaré. waaw mooy sa woykat. stade bi moom day yëngu. nga bëri deux combats arène am benn victoire. ak benn défaite tey boo ñu doon wax défaite bi nga xamante ne bii moom nga am ci arène bi koy yóbbe lan lan nga ñuy wax lan moo lan moo tax nga daanu jour boobu loolu sa bopp ba mu ëpp rek xam nga man moom à chaque fois confiance lay andi mm-hmm. Mm-hmm. ak war a daanu tamit daanu waaw war a daanu daf ciy bokk voilà loolu la mm-hmm. nga foog ne confiance bu ëpp nekkul defu ci mbër mais par fois tamit dalay gën ci lu bari c'est que mbër moom booy fekk si chaque jour mooy ëpp avantage ñu lay fekk si su xam nga li may wax. Uh-huh. ndaxte nit mën na laa fekk hmm? uh-huh. balaa ngaa def li nga bëggu rek daanu. mais boo feksee yaay ëpp avantage. arbitre day soufflé rek nga dal ci kaw sa waay. kese nag di nuyu nag sama gars yi booy bi Zal. Uh-huh. Zal moom nga àndal ama fi am baax. fan si club Fodé Mbissane bi. ak waa école de lutte ak waa Fisel Mbalaan bi ma dëkk nag. waa di wax waa Fisel bu ngeen gisee lii xam ne lépp pour yéen la. ndaxte ndam bi moom lu mu métti métti ak lu mu guddi guddi Fissel lay dem. Mhm. du ma Fissel mooy sa dëkk. Fissel mooy sama dëkk. Mhm. du ma tudd quartier. Fissel mhm. tout droit lay nekk. man mii su ma amee lu ma métti sax Fissel am lu leen neex. loolu moom ma gënal. yow daal foo mën di nekk Fissel mbaa daan ngay représenté. voilà di wax waa Fissel nag. Fissel bari na ay ndaanaanu bërekat. bari na ay champion. bari na ay mbër. bari na ay mbër. mais jàppalante wuñu. jàppalante lan moo waral loolu. ndax sama grand yëpp jaar nañ ci làmb. ñàkk a jàppale moo tax mu bàyyi làmb mm-hmm. trop tard mm-hmm. di wax waa Fissel nag ñu booloo doon benn quoi mm-hmm. xam ne àdduna amul solo te ñun ñëpp benn lañ yaa ngi comprendre boo amee ndam tey waa Fissel yëpp ñoo koy bokk feetoo ko kenn du wax ne Mbisaan moo am ndam bi toog ci di ñun ñëpp ñoo koy bokk kon nag Fissel mën a comprendre loolu yow daal da ngay lancer da message. doomu Fissel yi jàppale mbëri Fissel Mbadaan yi. Fissel Mbadaan yi. Mhm. am na ay borom jom lañ ay xale yu ndaw lañ. Mhm. Fissel ñu fay bore yëpp maa fa gën a doon xale. c'est que Fissel ñu fa newoon bari nañ bisaan joon bu mag Fissel la newoon. Mhm. booy Fissel. ay Pape Baoum. Pape Faye. Khadim. ñëpp jaar nañ ci làmb mais ñàkk jàppale moo tax. ñàkk a jàppale moo tax àgguñu fa ñu war a àgg. loolu la. mais man nag wax dëgg fa yàlla. li may lancé message daal pour gars yi dëgg ma. Mhm. xam ne li ma bëgg daal ñun ñëpp ñoo koy bokk muy Fissel Mbadane. Mhm. waa mhm. mais man ren gi may door a dugg dakaar yaa ngi soog a ñëw Dakar. waaw ko kooru daaw ba léegi laa gi Dakar ba koori ren bi. Ah, daaw ba léegi yaa ngi woon ci àll bi di reyante. ci reyante. foofu laa defee entraînement sax Dionewar. nuyuwaale waa Dionewar au passage. rawatina sama xarit bi Neymar Pape waaw Pape Diame waaw. Hmm. da ngeen a xaw nuroo sax mais booy dañu gis dañu gis yéen yéen ñi ba yéen ñi ëpp li ngeen di yëngu ci bëre simple bi euh, ni ngeen di ni ngeen di duggee ci àll bi day metti wax nga ko sànq presque da ngeen di gàddu seen saak def une semaine wala un mois ci àll bi bu làmb amee fii tey waaw ba trois mois bu làmb amee fii tey euh, ngeen fanaan ci ngeen fanaan ci benn kër bët set ngeen demaat ci beneen dëkk toppal est-ce que est-ce que est-ce que loolu noonu lañ koy dundee ah gëm-gëm rek gëm-gëm rek ak bëgg-bëgg. Mhm. c'est que bu ñu bëggutoon làmb tamit du demee noonu quoi. Mhm. mais làmb lañ yaakaar. Mhm. dañoo bàyyi jàng bàyyi lépp man maa ngi nii ba nii aw ma métier. làmb kese mooy sama métier. te moom làmb rek mooy sa métier. waaw sama yaakaar sama yaay tamit loolu la yaakaar. pour ma tekki ci quoi. barke Serigne Touba daf may woo. mais bu dee instant da ngaa xaalis ma envoyé la cinquante mille wala vingt cinq mille. pour ngay lekk di nelaw di dem entraînement. sa yaay moo lay wax loolu. sama yaay waaw. xam nga ne loolu loolu loolu soññee la quoi. soññee la waaw mm-hmm. loolu moo tax ñemewuñoo toog quoi. Mm-hmm. dem di ñëw daal. Mm-hmm. pour lépp bu baax. mais nag suma ma sañoon nga wut beneen métier ba nga xamante ne bii di ko boole ak li nga xam ne moom mooy làmb ji parce que làmb baax na mais dafa nekk la nga xam ne mën naa dox tey suba du dox te bu doxul tey suba boo amee leneen loo jàpp mën na la mën na laa dimbale tamit. c'est que xam nga lan mooy problème bi. Mhm. man su ma liggéeyoon nii liggéey ci biir wala wàcce conteneur ñu jox ma xaalis sax. Mhm. te du xaalisu làmb du ma neex barke Serigne Touba. déedéet waay. barke yàlla yow daal lépp loo mën di am ci kaw suuf xaalisu làmb moo la ko gënal. waaw. xanaa kon loo kon loo ci teg. déggu ma ma ne kon lan nga ci teg lii nga ci teg xanaa làmb ji. bakkan bi ci teg ak genn wàll bi ak bakkanu saal teg naa ci ji. <laughs> teg bakkanu teg ci sa bakkan rek. <laughs> bakkanu saal moom tegaat <laughs> wax nga affaire bu garaaw amoo benn métier bu dul làmb. waaw waaw loolu moom ñu bëri duñ ci ànd ak yow mbër xam nga lan moo tax. Euh, euh, jàpp làmb ñëpp xam nañ ne facteur de développement la nit ñi ñi ngi ciy tekki mais booy xool ñi am licence ci Sénégal ëpp nañ ëpp nañ ëpp nañ 2000. te ñi ciy ñi ci ñi ciy fayeeku ay millions bëriwul kon nag mën naa wax ne di bëre am métier dara yàqu ko. waaw loolu moom dëgg la waaw soo amoon métier tamit day gën a baax. te du mën na la bañ a yàqal dara ci sa làmb. loolu dëgg la waaw mi ngi noonu loolu laa lay. soññee après dinaa wax daal mu wutal ma métier ko. mu wutal la métier nga wax seet waaw nga seet fooy xëy ànd taan naa continuer ci làmb ji. voilà loolu la nag. Hmm, ayca loolu lan ngay wax waa Leewtoo TV. ah waa Leewtoo TV maa leen di bëggee di leen siyaar rek. Hmm. di am contentement ci bés bi tey. Hmm. ngeen bàyyi seen it yëpp rawat na weeru koor bi. waaw. ñëw ànd ak man ñu def émission bi. ma wax li ma war a wax. ak li ma bëggoon wax yëpp. Mhm. kontaan naa daal. mais koor gi yaa ngi entraîné wala da ngaa arrêté. suba si saal laa jógee de. waaw saal nga jógee nii. suba si yaa ngi yëngal ci suba si mais entraîné ci saal rek ngay dem. non non dama xëy saal après Iva laay gontu. ma mhm. liggéeyee suuf ba pare yeegaat ci kaw bar fixé yi. Mhm. waaw. ayca Zal yow yaay magu Fodé. waaw maa lan nga bëgg a wax. di nuyu ñëpp rek di ziar ñëpp. di leen wax nag ñu gën koo jàppale bu baax a baax ndax xale la te bëgg na lu muy def. billaahi. essa yi moom man rek maay son ci moom essa yi hmm. ak xanaa yeneen boo ñoom Mod Ndong ñoom hmm. Axma hmm. ñoom sama mag ku ma bokkal baay ngote kooku it day son ci moom di sant fan sa club mbisaan ñëpp di leen nuyu di leen bëggee di sant yaayam bu baax a baax ndax man la ko jox yow lan moo la gën a neex ci mbër man li ma gën neex ci mbor mbor boo xam ne day bëre rek chaque instant day takk ngëm mm, mm. mais koo xam ne moom danga dangaa nekk ci lam bi boo effectivement boo effectivement ngay bëre mm-hmm. suñu dëkk loolu moo fa gën a bëri am na mbër ñoo xam ne effectivement boo effectivement lañ bëre mais kii lam bu xasee ubbi waaw man damay mbëkkanteeg moom fu nekk ah waaw daje nan Joal daje nan Fimela daje nan Ndangaan ah am na douze mois yoo xam ne gisuma ko waaw mu ngi ci àll bi su ma soxla ma dugalal ko mm-hmm. ak sama yeneen boo mm-hmm. di ko maak moom ju bu ñu juboo tey du ñu juboo suba ndax dama koy soñ mhm. lu ne pour mu mhm. gën a entraîné fas jomam mhm. dimbale waajuram chaque jour loolu laa koy wax am na solo comme bàyyi na micem jàngatul deful dara liggéey xëy tet dem entraînement ngoon maako ko yóbbu entraînement di ko teg lu métti maa yëkkati nag mais dama koy teg lu métti ko waaw di leen wax waa Fissel daal ñu gën koo jàppale bu baax a baax magam yi ñoom moo Modou ñoom Pape ñu gën koo jàppale bu baax a baax. waaw. jaajëf Aïcha euh, lan ngay tàggatoo yow tamit. waaw du nuyu ñëpp rek di sant sama yaay bu baax ak sama papa. ndax ñoom it merewuñ ma ci benn yoon. billaahi di wax ñuy wax ñuy wax ñu bàyyi wax ji. Mm. kii maak moom deret la. Mm. dafa am ñuy wax seen diggante yéen ñaar am ñuy wax suñu diggante mhm. na mbër yoo xam ne sax buñ ma rombee sax duñ mën nuyu ndax mbisaan ndax moom ndax mbisaan barke alxuraan am na mais ragal péete nag day xañe wërsëg day xañe wërsëg mhm. looloo tax may son ci moom di ko soñ di mhm. ko wax ne góorgóorlu bu baax a baax waaw comme lam bu amee dëgg bu maay lépp daal maa koy def foofu yor bagage yi ku mu dajal ma ne boorel yaa leen ëpp doole yaa leen ku bore mu daan la boo borewul mu génne la parfois rek mu jeex bisaan dégg nga li nga xam ne moom mooy sa mag li mu wax lan ngay tàggatoowe ah di am contentement rek waaw mhm. di kontaan ci moom tamit mhm. ak gars yi yëpp mhm. di kontaan ci yow tamit Babsu yow sama gaayan nga sama xarit nga ak sa jëli caméraman sama caméraman bi Mansour Fall la Benjamin. voilà Mansour Fall Benjamin ak yaay Fall bi. Ah. waaw waaw Fama. voilà Fama. Mm, mm. kontaan daal. Mm. waaw leen wax ne nag moom. ñu ngi ci bi di leen di suivre. jaajëf fii ba Gambie. jaajëf merci waay kontaan naa xarit yi nga xamante ne bi yéen a ngi ñu doon topp ci Leewtoo TV tey ñu dalaloon Fodé Mbissane di champion ba nga xamante ne bi day bëre simple mais tamit day bëre nga xamante ne bii moom mooy arène bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ak beneen invité incha allah jaajëf